nañu sa diggante ak caat caat booy bamba invité nañ la ITV di la wax sa diggante ak caat booy bamba nga ñëw ko ak esaat mu tàllal loxo wala boog fi mu joxoñ yow yaa fa toog sa diggante ak caat booy bamba tax seeti naa ko nee na yow da nga wax amuloo fit ñemewuloo da ngay toog di wax ak. waaw loolu lay wax la rek ñoom xamante bu baax ay caat gaay man ñooñ kanam laa màggee. wax ji moo mooy seen kanam laa màggee. yaa ngi bëri naa seen koñ mbapat moo di booy kooku daan li ma la yàgg na yaa ngi dégg ma nekk booy bu ndaw xamante nañ bu baax a baax a baax moom moo tal ay wax na bàyyi wax ji maa ngi ko dégg muy wax. dafa dafa jóge ci victoire faaw faaw mu wax. mooy li rek moom dafa tal ay wax man talu may wax moom 15 combats la def 10 victoire 5 defet naaru sokaas bi ko duuma daan ko fii moo ko jàppee amul minute yaa ngi dégg kon moom na bàyyi wax ji man dama def 12 combats am 11 victoire am am 10 victoire. am benn machine benn defet yaa ngi dégg kon tey jii am na yenn yoo xamante ni maanaam moom su koy wër di wax daxay wax pour neexal ñi mu nekkal rek moom sama combat ak Quench avant moo taxaw avant moo bëre moo ci sama combat moom lañ jëkk a dox. Abdoulaye Ndiaye du ma du ma bàyyi ma fenn Abdoulaye Ndiaye si boppam mu ngi dégg bu baax sama combat moom doxoon na ko ba mu taxaw ba ñu wooñu si ci bi ñu ñëw war a signé. yaa ngi dégg lépp lépp lépp ci kase lépp ba dara desul lu dem signé jëlee xaalis. ñu woowaat ñu laal wax ci yoon bi lañ ñu woowee nañu carrément ñoom ne nañ ah ne saa nangam mooy lool nañ leen xoolal leneen kon suñ ñëwaatee fii di wër di wax. mais ce que boo nekkul boobu dañ koo xool xam ne baaxul ñu bàyyi monsieur. ñoom la rek loolu ñoom la rek bu dee dañuy xool baaxul moom du mës a baax loolu ñoom la rek. mooy li ma moment bi est baaxul ndax moment bi pare na pour bëgg yow. waaye xam nga gars yi fi mu ne ma wax la xam nga wax ci mbooloo dafa yomb xam nga micro yi wër le wala nga toog say booy gars yi wër la ngay wax dafa yomb wax naa la ko dina sànq gars yi ñun xamante nañ suñu biir bu baax wax ji moo fi nekk nii rek mën nañ la wóor nag dëgg lay micro ngay talaxu di wax mais ñoom ñooñu ñëpp ku ma si dajaloon ci ruxulaa la bu ma la fu ma la jaar la foofu ngay jaar barke arxuraanu karim billaay wallaay ku ma si dajaloon ci ruux bu ma la ne jaaral nii foofu ngay jaar mais fi mu toll nii peut être ci làmb wala ay mbooloo nii ku si nekk da ngay bëgg a sa bopp man boo xoolee am habitude boobu wallaay man dama am kersa sax nekk si mbooloo tey yii nii di bëgg a feeñ wala di bëgg a wane woo parce que amul njëriñ amul sens. àdduna loolu taxul nga bëri nit ki dëkk nit si mbooloo wala topp nit si mbooloo di coow taxul ngeen bëree am na yoo xamante ni maanaam damay gis yenn mbët di ko def mais loolu ñàkk respect la ñàkk jox nit ñi cër la. parce que tey làmb yëfu noobu la munoo gis làmb ñëw esaat làmb ji fees dell ñëpp toog amateur toog nekk ay noble sañse ba rafet ñëw cosaan nga yéeg ci ay tribune di xam nga di xëppoo ay suuf di saaga ay ndey di dépassé xam nga yooyu dafa rafetul quoi te mu leer leer yàlla yow ki ngay saaga wala ki ngay jéem a dëgg bu ngeen dajoon ci mbedd ñe moo ko ne sa bët bi suuf ngi ci. bëgg nga jël combat bi. mooy li ma la suñu waree bëree dinañ bëree. waaw li ma bëgg a xam li ma a xam mooy. suñu waree bëree dinañ bëree làmb promoteur moo koy dox. gars yi nag seen wax dafa bari mën nañuy wax nii ci kaw nii de fekk li ñuy def ci suuf duñ ko wax ci kaw comprendre nga yooyu nag moo bëri ci làmb man moo tax man du ma bëgg nekk di détail ci ay mbër wala may wax ci ay mbër wala dara yaa ngi dégg promoteur yi xam na ñu war a bëre yaa ngi dégg. mais suñu la àndaloon avance Thiatou Boy di nga ko jël. déggoo li ma la man dama am staff sama staff ku ñu d'accord kii làmb la damay bëre moom. aw ma ci yàq ak defar sama staff bu ñu tax pare woon tey tey tey de caat wallaahi azim barke alxuraanu karim du yàqee ci man wa taala man aw ma lu ma ciy yàq lu ma ciy defar dama am ñu topp sama ginnaaw am ñu ma yaakaar am ñoo xam te ne ñoom ñooy dox affaire combat yi loolu moo tax du ma bëri wax ci ay combat boo gisee nag moo koy tontu li mu wax ci interview am ko dégg ci interview muy wax di talaxo di wax rek na baay wax ju bari wax ji amul benn njëriñ barke alxuraan bu ñu waree bëri dañ bëri ñoom wax ji moo fi nekk ni rek mais xamante nañ suñu biir bu baax a baax a baax bu ñu daje woon laa laax ci mbedd bu ma kon nee jaaral fii wallaahi azim foofu lay jaar. Thiat Mène tàppat ci mbër yi barke alxuraan. billaahi wallaahi watalaay waxe xam naa ko baax saraan. doo ko jël avance am na ko tëddal fi déggoo li ma la wax moo tax ma wax la loolu loolu jarul muy yàkkamti loolu jarul mu koy yàkkamti mu bari rek jarul mu yàkkamti na promoteur yi dégg nga xool gars yi génne xaalis te si bi sa diggante sa diggante du ma moromam ci dara.